salaamaaleykum maître El Hadj Diouf. nu mu demee yaa ngi si jàmm. kooku la. Euh, man la Adama boss des négri. Hmm? man yaa ngi am jàmm foo nekk nii yaa ngi sa kër wala. non non. waaw man maire euh, man maire euh, sama sama bàjjan la bàjjan la si man. Marie bi dëkk Jaxaay sa xaw ma sa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 maanaam bagage yi nu yàq ak nit ñi nu rey moo tax quoi ñu war a moytu yenn yi. ma nga déglu ma wala ma coupé. waaw acca. da ngaa maa bëgg xam waaw. man damaa gën a xam li li li xewoon te man taxaw di sanaa. waaw acca dama nekkoon ci live bi rek moo tax. yow di yow di nga ah? Ah, ba pare ba pare vidéo bi du doon en direct quoi maanaam. bu dee am nga xel déglu ko rek. waaw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 ok ñoo déggandoo kàddu yi ngeen xamante ni maître El Hadj Diouf na ko pare naa ci moom